auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala al-hadi sayyidinaa wa mawlaanaa wa ala aalihi wa ashaabihi sa ridwaanu tamkiin ñu ngi leen nuyu di leen siyaar ñu ngi si seen seen YouTube bi Rafah 313 TV ñu ngi ñu ñëpp ñu ci réew mi ñu nekk biti réew internet yi ñu suivre yëpp ñu ñëw ak ci benn secret bu am solo boo xam ne ci wàllu kaaraange lay wax képp koo xam ne da ngaa bëgg kaaraange rek ak lépp loo xam ne loo dugg rek mu yàqu muy wàllum cat ak bët bu aay incha allah rabbi suñu borom dogalee ba nga am CC bi suñu borom daan la jàppale bu baax a baax bi efficace la boo amee sax maanaam boo xasee sangoo ba mu moom man ngaa bañ a sangoo waat kaaraange am lépp loo xam ne lu lay yàqal moo xam wàllum rab la moo xam moo xam wàllum jinne lu mu maa doon rek suñu borom doon ci musal ak cat doomu aadama bu baax bu boo fexee ba am ko rek la jàppale bu baax a baax a képp koo xam ne da ngaa bëgg a seetlu wala nga bëgg a listixaar la incha allahu rabbi ak wala bëgg fi firi ak bëgg xam sa sax ak bëgg xam sa tabiha ak bëgg xam ben façon biddiw nga am ak ku bëgg xam ban couleur yére nga wara solo ak bëgg xam sa sax yi incha allah bo boo ñu contacté rek suñu borom borom la leeral yëpp incha allah ene da leen am ngeen ndomb bo xam ci karanga lay dox ndomb bu yéme la dañ koy nango jëf sax bari wu ndax ndomb gi dafa bari ay danger képp ko xam borom kër ni mo du wul la dan nan la boo ko amee fexeel ba soxna nga dij leen toog waxtaan ak ñoom ndax ndomb gi mom du lebb ndomb gi efficace ak efficace boo ko defee nit di def ci yow ab moom balaa man ñett fan dana dugg ci biir suuf ndomb gi yéeme la ñu la jox ndomb gi day day ànd ak sarax sarax bi ñun ñoo koy def ba pare jox la ko képp koo xam ne am nga rek moom bay ba ñi nga nekkal ñëpp lu yéene la képp ku la yéene ab rek bis bu bis bu bu rek incha allah rabbi ndomb gi du leble la yi ñu fi wax yëpp képp koo xam ne ku ko yittewoo rek boo xoolee ci baara écran bi gis numéro yi nga woote képp koo xam ne fa bëgg a ñëw ci bërëb bi ci moom da nga ñëw ba corniche rek nga laajtee ana tali bi boo ñëwee ba tableau gaz boo wàccee rek boo wootee rek doon la bi ñu ngi ci kaw tali incha allah rabbi képp ku ñu soxla na bu dee Dakar la mën ngaa ñëw si kaw fois boo ñëw foofu rek suñu ñu foofu incha allah jërë ngeen